waaw nuyu Serigne Cissé mu sama xarit ba taalibi Serigne Jili la sa Touba ndeysaan ma kan di sa xarit di sa Serigne. kooku sama mburu la. mais ko Kazu Rajab bi ñu ngi ñëw di ko dalal si. ñoo koy dalal si nañ dem Kazu Rajab nag a màggal Kazu Rajab. waaye nañ dem Kazu Rajab di waxtaan bi Serigne Fallou liñ paas ci barke Serigne Fallou. ndeysaan. ar arbitre bi wala sa Jili borom léegi léegi. donc koy sëriñ yi ni borom léegi léegi sëriñu 5 tonnes sëriñu 5 tonnes mais moom mooy sëriñu Mbacke Faye di sëriñu sëriñ Cissé ak sëriñu Modou Lo sëriñu Modou Lo ndeysaan ak Waly ak Waly Seck vraiment ren bu mag ba waaw bu ma juumul sit bu am na sëriñ bu koy yëkkal. sit bu ne am na sëriñ bu koy yëkkal. waaw feere sëñ borom kan baa ne. borom kan baa fa ne. maa la ko wax fii. Ah, mu dégg. ak sëñ jiili moo fi ne borom léegi léegi. ah kooku ndaanaan la doon de. ak Babacar Mbaye sama xarit. neexul mais arbitre suuf sama waa ji nag. waaw sëñ Samba Boy Dakar. arbitre suuf la ne Boy Dakar. yu naa jóge fu ñu ko foogee Boy Dakar mi ngi bëree ku mën a bëree daanaan lay bëreel professeur. gis nga di mu taxawee la xam ne ku mën a bëre la. abu nee naa la du yomb. tey. Ah, am na la ma waxoon de. man ma la waxoon ba léegi maa ngi ca. sama xel a ngi ñaaw de. ah baax na. sama a ngi ñaaw de. non dina ñaaw abu am na fu mu teg. makan am na fu mu teg. ma teg am na fu mu teg. waaw mais loolu après lañ koy xam. après lañ koy mais Boy Dakar tey jox na ko cër de. loolu booy Dakar la de. nga ne mënul ñaa may ginaar bu feebar. <laughs> dina am ñu bëri ñu gaañu. dëgg la xam nga xol bee rafet ndeysaan. waaw bu la mayee nañ ko nëbbu. xam nga bol bu rafet buy sëy. tey dafa def yëf lu yéeme ci lamb. si la dëkk de. bu ko neexoon. ah dañoo tëgg lamb ji yéemal ko seen biir kese. moom moom bol bu rafet. tey dafa joxe accréditation. Ah. di joxe ba jox ñoo xamante sax mosuñu ko jëlal image. daa yoon bi moo tax ku si ne mu mën laa dimbali. soxorut de. ndaanaan la. keroog ba keroog ba muy jënd caakari daa jëndal ñëpp caakari ba ñëw ba si man na ma làmb jëlal. waaw mais keroog. voilà keroog ku la presse ñu baax ñi ñu ngi si réew mi ba léegi. dañu naa bàyyi ak libéré inspiration. kuy bañ ko wax ku baax ku ne baaxoo. billaay wallaay. ku fi baax ñu wax ko. ku mu naxari rek. kenn du kenn mais ku def jaloore ñu wax ko. waxal la ko de man la làmboo. ku mu naxari rek ma ne. maay wax loolu. nga def li mu def rek. doole yemul. déedéet. mais booy Dakar tey jox na waa ji. am nga xel man da nga mais moom saa koy roye ma Babacar Mbaye li may jëlal génn la rek si. ay waay sama caméra bi waay. jar naa ay millions de. <laughs> jinne lii lan la. <laughs> bal leen. amuloo wax Malika. ah xam day. Boy Dakar a ngi day. Babacar. boo jékkoon del baal bu wane sa doole. àdduna <laughs> amul solo lépp teraanga la makan la ma waxoon ba maa ngi ci juguma ca ma ni joguma ca la ma nekkoon gàkku to la muy suuroo bari na fa tey ah lamb xale yi dañuy lamb billahi booy Dakar ñu ña xoolal rek mais nam congu la rek combat bi benn congu la pour bu de félicitations benn <laughs> mais benn coow la. waaw benn coow la. buñ dérantee mu neex. Boy Dakar. Ronaldinho. Ronaldinho waxante lu ne. lu ne ku ne dina maa man. dëgg la waa ki man léegi lay feeñ. léegi lay feeñ ngir yàlla jàppante leen. dëgg la bu kenn delloo avance. waaw amateur yi bëgg. avertissement waaw waaw. a Boy Dakar dafa la bu nekk dama suuf. Paul rafet ñëwal fii la bu ñu jàppante mu jeex wax naa ko. Eh, lii la la. de. maanaam coongu la de. rasul. maanaam la de génn na. billahi wallahi makkan moytu ci lambu. bañ maa moyu xam naa li ma wax. xam naa li ma lay wax. internet yooyu ñu seetaan tey ñoo ci kanam. bañ maa mayu. daanaka mosoo dóor épercuit si lamb ji yow. dem naa Arnaud. Babacar topp ko ji na. day naani soow wala lu naani. man naani meew de dama caa Arnaud de. soow lay jël wala meew. waaw mooy coup bi mu meew lay jël kay. dañoo am benn avertissement. Boy Dakar nee na lii la bëggoon mu ah, dem de. comme moom nee na moom moom du moom du doyal ko noonu moo xam. na meew soow nee na. tey Boy Dakar Ronaldinho ñëw ñaari xale yi dañoo décidé. dañoo décidé. dana soxla wala su ma leen ko. waaw. Boy Dakar bàyyi taw yi. ah Boy Dakar tànk yi la soxla. bu ko jëlee mun naa wàcc nag. tànk Ronaldinho ñooy lay wër. ah. war a pièce ba jàpp cey lii jëlal ma waa Géejawaay côté bee amu. ndeysaan ñu ngi seen i def 100 pour cent Géejawaay. waaw ndeysaan. yéen 1000 pour cent. ñoo ñooy waa gàkk. waa gàkk naa def nañ face to face ñoom ñaar ñu ngi jàkkaarloo. moom la ndeysaan. cey bii lamb. lamb bi Assane Ndiaye la naa la. tey dina 11 février. di bisu mbëkkante weeru mbëkkante la. juróomi grand combat la. jàppante na ñooy perkil yëpp ànd gaañu. Maguette. Maguette wuyu Pérez bi bi baax kontaan ngeen. kenn tëju la. li gën ñaam ci lamb. tëgg combat bu toll nii. libéré presse bi yëpp. ba pare ñu ne 22 sa digal leen seen vidéo. jarul bi nii wi. Leewtoo Boy Dakar. Ronaldinho. Ronaldinho ak Boy Dakar. da ko jàppante waat mais Boy Dakar bi li muy xanaa da koo réer tey Boy Dakar de sa baaxul de. da mooy li muy def. door bu daan du am jàpp oh lii lan la muy xew du ko si daan de du ci daan ñaari bërekat lañ bu jàppee njàmbur mu xam ci daan dañuy génn waaw gis nga du ko ci daan fal looloo Robos Kaane te bu bu ma juur naan yéen a koy xar eh. ma bàyyi Boy Dakar tey. Makar mayu ma ci la mayu ma. dégg nga mayu wala doo ma mayu. troisième avertissement. Boy Dakar mii tey nu ko daal amee cinq ñu mu wooyee di. amul trois avertissement. dama waaw waaw waaye Ronaldinho nee ay ku dugg ci mu xamul ñaar mi daan nañu. mi-temps waa ndeysaan ba ci wayli wayli la am Tamra Sadio. Eh, loolu la loolu la bëggoon mais jeexagul de jeexagul de jeexagul jeexagul de jeexagul de amutul woon ba la amul jël amul eh, jël amul eh, déedéet am na lu xew de am na lu xew eh, am na lu xew de am na lu xew de